tukkee benn sujet rek mm. teg immédiatement image bañ a xaar ñu laaj la ko pour ñu gën a gaaw mm. euh, débrief gaa gàmm gi moom mooy mm. rek démb peut-être li ñu def ni sax suivi de de cas la ndax euh, euh, xam nga ba ñu ñaawloo démb gàmm gi nañ ko doxalee ca Tiwaawoon ak Saliou tegal image yi yëpp nga ko yëpp ni ñu la ko waxee nañu ñaawloo démb la xew euh, ca euh, euh, tiwawon gamu hmm. gi ak taxaway bi nga xamné ne Aziz Ndiaye am ko fa euh ça a été bien entendu ça ça a défilé dès le défilé Saliou ça a été bien entendu euh, hmm. par euh, population sénégalaise bi te ñun loolu lañ si jublu hmm. mooy comme ni ma ko waxee démb leer Euh, ñun du ñu ay donneur de leçon euh, sunu émission yi ñuy def du rek ci politique lépp loo xam ne gis nañ ko hmm. Saliou yokkal son waa ji ñu déglu ko yokkal xale bi benn kenn benn ay vidéo yu bëri ñu may yónnee nag ci kii pour wax démb suñu yëf yi effet may ñu son fii ñu dégg ni ñu dégg lu xale bi di wax Adji Ndiaye yaa ngi saboté ah yow yaa ngi saboté lii mooy lan non lii jaadu la gis nga yow kilifa yi war nañoo wax ak yow ay caaxaankat kese nga dajal sa kër yow Aziz Ndiaye ay caaxaankat kese nga dajal fa ay jigéen ki góor ñiy jaxasoo tegoo ko fenn yow Aziz Ndiaye lii mooy lan lii mooy lan Aziz Ndiaye jour gàmmu ay jigéen di mel ni ñuy défléwu di paccal lu ne ñu def ko ñàkk jom ay tat lu ne lii jaaduwut lii moom rafetut du dëgg du yoon yow Aziz Ndiaye yor say nag yu bari ba nit ñi tegoo ko Aziz Ndiaye su déwénee mun ngaa dem Sorano nga dem nga dem foofu noonu ana waa këri Alaaji Fallu ana waa këri Alaaji Fallu ana waa këri Alaaji Fallu ana waa këri Serigne Saliou borom daara yu ummul xuura ma communiqué bu njëkk bi nga wàcceel ko ba ñu gis kan moo bind communiqué bi mm. donc loolu mm-hmm. euh, comme ñu ñoo sélectionné la ndaxte euh, sama télé mm. ak ay sénégalais yu doon ñaawlu yu àndandoog ñun doon ñaawlu mm. euh, la xew wàccee la communiqué ba ñu xam ñan ñoo ko bind mm. bañ doon euh, ku ne dama yónnee def ay capture di dama mm. yónnee la fa xew ak yu mel noonu ñun ñoo sélectionné quelque yónnee ko donc loolu dañuy rafetlu sénégalais yi topp bi ñuy topp euh, sunu émission yi ak programme Public SN TV mais surtout comme ni may wax rek ñun fii sénégalais yi foog ñuy tàmm Euh, di euh, euh, waa taxawal foofu Saliou foog ñuy tàmm hmm. di dégg ak di déglu ay critique hmm. ndax tey ku def dara ci pénc kenn ku nekk si ñun am nga droit jàngat la mu def ci penc ci penc. da nga am dafa am solo li nga wax ci penc. waaw loo def ci penc loo def ci penc rek. loo def nag làq ko sa biir kër. voilà suturaal ko ci mooy sa hmm. vie privée. exactement waaye euh, mooy lu euh, résumé. Hmm. ku dee ci marché yaa tàgge sa bopp. exactement ndax tey jii euh, ñun amuñu benn problème personnel ak qui que ce soit. exactement man xamuma leen ñoom it xamuñu. seen vie. ñunte wuñu ci dara dara ñoom seen domaine voilà seen domaine ñu nekk suñu domaine voilà ñun kenn dérangé wul kenn dérangé wul kenn loolu c'est important parce que xam nga hmm. Sénégal duulu dëkk bu nakaree waxee la hmm, hmm. parce que am na yoo xam ne boo koy ñu naan dafa soxor rek dafa iñaan ak xaalisam laak nangam nangam moo ko may ya, da nga ne iñaan ak wala diw ñun euh, amuñu lu ñu kenn ndax euh, ñeewuñu kenn ñi ngi sant yàlla sunu borom bi Euh, ñoom xamuñ xamantewuñu hmm. wax naa fii démb ne je j'ai beaucoup de respect pour l'opérateur économique qu'est Aziz Ndiaye hmm. ndax euh, créer entreprise hmm. jox ay liggéeykat ay doomu Sénégal mu jox leen ay liggéey kon kooku ñun mënuñu lu dul nawloo ko ba ca des nag mooy gis nañ tamit ne euh, ku fonk euh, diine la ak taarixa hmm. ndax euh, ku ne xam na ni ci Seydi Hadj Malick Sy la bokk waaye terewul kërub diine bu fi xew bu fi xewle hmm. dina fa yónni appuyam te loolu ci dooleem la loolu lu ñu rafetlu la hmm. waaye lu ñuy ñaawlu mooy moom Aziz bu bu fàttali tur bi ñu ko tuddee ak kañu ko tuddee hmm. ak la tax a jóg xew-xew yu muy dem hmm. warul bokk moom loxoom warul dugg wala wala wala muy feeñ lenn loo xam ne puukere la hmm. euh, fola caaxaan la ci bésu diine ñun foofu la ñuy waxee ndax comme ni ma wax rek Sénégal boo xamee boo xawee am as tuut bu la yàlla sunu borom bi dimbaliwul doo dégg dëgg ndax doo am ko la ko wax dëgg la ndax ñi ngay àndal ñëpp nga foog ne dañ laa bëgg bëgguñu la. comme mm-hmm. bi jóge ci yow bii bi mm. jóge ci yow di dem ci ñoom la ñu bëgg. bu subaa. boo ko mm-hmm. amatulee ndax comme li ma tout le temps yàlla mayewul dafa able. Mm-hmm. te boo ko sàmmalu moom yàlla sunu borom bi lim la dénk boo ko ko sàmmalul. am na fulla ak fayda bu doy ne na ko recette nangu. jox ko keneen ku mu ko sàmmal. léegi nag yow mii nga xam ne dañ laa yàlla dalaa dénk nga am. fanweer maa nga am ñaari milliards xarit. Hmm. mooy ñi ma tuddee des faux amis nga xam ne bëgguñu la faalewuñu la. Hmm. dërëm bi nga leen di jox. ak taxaw affiché yow pour mën ci am seen turu bopp. Hmm. ak mën a lijjanti leneen à travers sa tur yow ñu mën a lijjanti leneen ak leneen. loolu la ñuy te bu subaa bés boo ko amatulee. koo woo téléphone doo du la jël. sa téléphone dina dina gëj a sonné. dëgg kon. ñun fu ñuy waxee ñun ñoo war a wax hmm. ndax ñun ay taskatu xibaar lañu di jàngat actualité hmm. actualité nag do rek politique people la sportive la ak lu ne la hmm. économie te comme ni ma tout le Sénégal dafa toll foo xam ne ñi war a wax foog ñu wax ndax ñi war a wax dëggantaan waxuñu euh, oustaz yooroon a wax oustaz yaa ngi ca xew ma gis nga wax naa démb ne euh, ku ku xamuñu euh, euh, ku nekkul référence. Hmm. ak li ma jàppee anti valeur ci wàllu oustaz mooy Modou Fall moo ko symbolisé. Hmm. gis nga ko ci même xew-xew am na ku ma ko yëgu ma ko woon sax am na dem ku ma yónnee ci vidéo yi foo xam ne moom Modou Fall fa taxaw tagg jabaram dégg nga di ay dafa yoo xamante ne ni xam nga kon kooku nga xam ne yaa ngi wuyoo turu oustaz nga dend ak Aziz Ndiaye nga war ko yedd war ko euh, Saliou wàññi wàññi leen foofu maa ngi daf may perturbé. volume wàññi leen volume retour bi waaw day ñëw fii ci ñun waaw donc koo xam ne mi ngi wuyoo tur oustaz. Hmm. nekk sa wet yow war laa yee ci diine war mais war laa yee aussi ci àddina. Hmm. kooku moo la dàq pookare dàq la mumbaay dàq la wax leneen loo xam ne ça n'a aucun rapport hmm. ak yëfu diine hmm. am na tamit yeneen vidéo yu ñu ma yónnee foo xam ne Modou Fall yii nii fa la hmm. nekk mel ne rappeur buy buy buy kii ne xaw ma day toppandoo ñoom oustaz daf sigay xaw ma di di di tagg ay euh, ay ñaareel ak ñetteel ak ay jigéen bu gàtt jigéen bu njool dalaay diine l'islam <laughs> euh, waxtaanam amul lenn lenn. point zéro. waaw xoola amul lenn lenn guddi gu toll noonu. stade deux point zéro. mooy lan yow guddi gu tollu noonu. tollu noonu ne mawlud hmm. ñu war a waxtaanee ay jaar-jaaru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa yow nga nekk fi di wax ay wax àddinaan tagg sa jabar ak dugg si ay ñaareel ak ñetteel ak. góor bu am fulla day am ñaareel ak xawma lan ak lan ak lan tagg sa jabar wax ay waxu ñàkk fayda yoo wax waxu doy yoo xamante ne nii ñu nekk fa di baatare jigéen ñi mel ku nekk grand théâtre di baatareek di concours sañse doo fa gis gisuma fa man benn jigéen bu muur muuru ko total hmm. am na ñu def semblant de muur mel ñuy marié hmm. topp benn benn benn hmm. col fii wàcceeku su mel kuy marie donc vraiment caaxaan goo xam ne nii euh, ñun euh, ñun loolu la ñuy dénoncé Mm. mooy lañ doon dénoncé ci màggal Touba ba rek mm. lañ dañuy dénoncé fii mm. mooy tey euh, di jël yëfi àddina ay caaxaan ay fo di wanewu di wane ne nii nga tolloog tolluma nii lii laa am mënuma lii loolu la wax ne ñu ne Aziz Ndiaye xaaruñu ko foofu fu ñu ko xaar mooy euh, mu sàcc vie vie wum daf ko loolu vie privée la bu yemoon ci këram kenn vidéo kenn fotowul kenn deful naan loolu du am benn problème ndax am na ci mauvaise influence voilà du am mauvaise influence parce que lii bu subaa Sénégal nga xam ne dëkku complexe la ak dëkku hmm. naafeq dëkku hypocrite dëkku toppandoo la maatu vu yooyu Aziz Ndiaye da nga gis bu subaa keneen dina surenchérir hmm. bu yàggee ñun ñan la ñuy yàq dañuy yàq solo xew-xew bi muy Seydina hmm. Mohamed la ñuy tagg di ko sargal te ñun ñun ñëpp ci moom la ñuy roy hmm. moom la ñuy ñaan dañ dañ ñaan yàlla ñun yoru yoru bu doon sax benn ci jukkoom ñu am ko hmm. kon tey yii Aziz di def bu subaa mu def ay émule toppandoo kat yi toppandoo ko loolu day day nasaxal diine mais yàq tamit société hmm. ndax bu duñ demee société ba nga xam ne duudu xamuñu xàmmewuñu diine ak ngénte xamuñu euh, daayira ak ngénte xam leneen ak leneen société bobu yakuna te Aziz Ndiaye amul droit dugal loxom ci luy yak diine. amul droit dugal loxom ci lo xamni ni euh euh day foy adina loolu la man foofu lay waxe sans aucune prétention man awma prétention yedd ken wala wala yar ken ndax xeyna yaruma bay yeddate waye na amna droit lu ñëw ci pench bi ñun ñu dénoncer ko nu dénoncer yene fe te sante yàlla ba nga xamanteni ni Sénégalais yi dans la dans le majeure partie. gis nañu hmm. adhéré nañ suñu ñuy wax ndax dem bañ ko waxee ma ba may jëlee téléphone bi li hmm. ma jot ay appel ak ay message ak ay vidéo yëpp yu bëri bëri bëri dama obligé di wàññi samay samay tam ndax ñu ñu sénégalais ñoo ma koy yónnee euh, di di di di di ñaawlu ñoom itam hmm. euh, euh, yooyu xew-xew yooyu loolu nag Aziz Ndiaye moo ci war a moo ci moo ci war a jël ay tur ba fii la fi def mariage du siècle ñun mhm. waxuñu si saison d'affaire. ouais exactement. Mhm. suñu yoon nekk si def na fi mari moom ak xawma lan. yàq mhm. euh, euh, euh, ñaata million après qu'est-ce qu'on a vu. waaw après Vivian sa patron sëñ boobu tamit ñëw na fee defaat la même chose mu nekk concours compétition. ah soo bëggee nag moom waxtaan bi neex na ngay bàyyi sëriñ bi. <laughs> waxtaan bi moom moo neex rek. waaw léegi léegi kon maa ngi. wax sëñ bi fi gën. <laughs> waaw voilà. wax ma ne la li ma la wax loolu yëpp loolu yëpp rek. waaw ah. Aziz Ndiaye la moo fi ñëkk a def mariage boo xam ne. Hmm. ay xaw ma ñaata million ñoo ñoo ñoo ñoo fa ñoo fa wadd ba mu xëyee suba. Hmm. Euh, patron sëriñ feelu ko Viviane ñëw jël jël raw gàddu ga moom ñaata fan la def euh, mariage ñaata nangam ak nangam hmm. ñu ñu koy concurrente est-ce que ñun loolu on en a besoin. Mm. ñun oh, ñun est loolu ñun ban njariñ la ñu amal mm. ñoom ñiy wane seen am am ak seen daraja ku fay dem di baatar ñu concours kii naan ñaata million ñaata jamaa ñam ñoom loolu ban njariñ la am pour sénégalais yi ñoom ñu koy def ban njariñ la ñu amal oh, contexte bi ñuy contexte bi ñuy ne ba pare li gën a garaaw mooy ñu nekk si d'extrême pauvreté et d'extrême insécurité mm. parce que euh, euh, l'une et euh, la colère de l'autre. Mm. La pauvreté amène l'insécurité. Mm -hmm. Parce que les gens ont besoin de manger, de vivre. Donc, nous à côté du euh, Sénégal d'en haut et Sénégal d'en bas. Mm. Le Sénégal d'en haut, euh, borom biir ñun nit lépp loo def ci àddina mhm. da ngay góorgóorlu ba yow même boo fi jàttul ko ci lu baax Ndongo Lo fi jóge te ba mhm. tey li mu way albumam boobu mhm. bës bu yàlla sàkk nga dégg ci ay jàngat te loola yow fa artiste donc ñun foofu lañ lañ lañ ci bëggoon a wax saa joxe ay leçon wala dara euh, waaye Aziz Ndiaye la ñuy ñaan mu gën a sàcc kilifa la ñu naw ko lool am ci moom respect bu mat jàmbaara liggéeykat la waaye na beeg puukare bi sàcc vie def ko privé xaw ma daal lan la si jublu mais bu dee bu dee ndaje diine la woon wootee ndaje ba dafa transformé wu ndaje seytaane ndaje seytaane ndax foofu boo fa xoolee bu baax amul dara lislaam rien am na nag koo xam ne yeddoon nga ko fi mhm. dégg ca màggal déggu la wala bok num la waron déggee déggu la. ñoo ñooñu yemun dégg daal légui tay ya. waaw tey les gens l'ont jeté en pâture. ah c'est ah, clair. ya ngi ital bobu ngay dégg pàccalam bi la. ah dégg nga bu baax. Ah? han du ne pàccal pàccalam la. ah ban pàccal la xam nga xam nga lolu moy pàccal pàccalam la kay. soo waaw soo dégloo critique. waaw. hmm mhm. dang see wara am lo ci jangat walaay dëgg la yaa ngi dégg mhm. euh, Aziz Ndiaye nag moo weeru si marché ba ndax moom mooy dalal mhm. site internet yi jox leen néeg dalal leen kuy ñibbi mu may la ak fokat yëpp mooy dalal. waaw naan ñëw leen mais c'est-à-dire man jamais c'est-à-dire moom moom tamit c'est que psychologiquement mhm. il faut gars yi xool ko moom qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il gagne

xool fi ñu demoon keroog. ak ci too nit waaw. waaw xool fi ñu demoon keroog. est-ce que photo génn na fa. dara génn fa. yow bu fekkee yow yaa ngi jaay ay mm-hmm. affaire la ngay def di ko def. Mm-hmm. saa yu morom ñu ngi def cent fois plus tous les jours. ah discrètement ci sutura. ah wallaay. xool kooku rek. la muy ka ko woo. Mm-hmm. suñu kanam. dafa xëcc ci Aziz Ndiaye. mu yow. <laughs> wala <laughs> Aziz da ngaa séen. waaw <laughs> wallaay est kooku gë est-ce que kooku. Mm. jour bobu muy organiser loolu. Hmm. loolu gis nga kenn koko ko filmé. te xol kooku lu lu reuy ni mo doon organiser deug deug bi. mais est ce que xam nga ni dama lay wax ben affaire. donc te gisuma ben image. mais est ce que xam nga ni euh, palais Djily Mbaye. Mm-hmm. kenn du ko filmé. dede alors ah, xaw ko won sax. dede dañ koy téré hmm dama mossa and ak prince. Mm-hmm. DJ prince bu RTS. hmm ñu dem and ak sóori. ñu may ñu pour ñu visiter. Mm. ñu ànd ak conservateur kër gi. Mm-hmm. palais bi mm-hmm. mu visiter ñu fépp. Mm-hmm. DJ Prince ne fii su mu fi defoon plateau. conservateur bi ne ko fii kenn mësu fee def plateau. mu ne c'est interdit caméra. yéen sax da may nii rek ngeen di photo nii rek mais sax. nammuñu ko ci kër gi. dégg nga ju mais loolu mooy sauvegarde parce que nee naa leen internet bi mu commencé mm-hmm. génn ba léegi ca la dégâts yi amee xam nga mm-hmm. lu tax mm-hmm. Aziz Ndiaye bu defee li mu def nii mais loolu loolu mooy indi géej gi mais mooy indi sax détournement xam nga lu tax parce que yow yow boo nekkee simple cadre yaa ngi dégg am jabar bu bëggee tiit waaw bëgg a toppandoo ñoom mbokk yi ak ñëpp naan la ay Aziz Ndiaye Aziz Ndiaye xam nga nit waaw xam nga nit ah. nit daa bëgg mu dem détourner ay millions yaa ngi dégg organiser lu mel ni yow parce que effet boule de neige lay def jigéen ñi nag moom jigéen ñi xoola rek man damay yow xew-xew doon et puis yow noo mën jaxase ay jigéen ak ay góor def table ay manger table à manger yow normalement yow fii li nga waroon def kay man dispositif bi ma gisoon mooy te man loolu laa ñun loolu la xam mooy nga def say tànt jàngkat yi nekk nañ ci kanam jigéen ñëpp ci suuf nekk jigéen ñi nekk fii ñëwoon pour loolu góor yi nekk fële ñun ñun ay mbër ñëw foofu di kii waaw mais mais je dire Doudou ñun euh, euh, mais Aziz mi il est coutumier des faits pourtant ñun on a on a on a jamais eu à parler moom avant gàmmu hmm. man da nga dégg jékki-jékki ubbi TikTok rek gis ko mu togg de reer këram rek foog def vidéo partagé hmm. kii euh, mbëri yi toog euh, tiktokeur yi toog ma ni mu vidéo partagé kii reere ñebbe sax ñebbe bi daa neex si moom waaw mais yow fii te jabaram moo ko toggal mu kontaan doodu fii kenn ku nekkee guux kaas yaa bokkul rek dëkk waaye ku nekk ku yeewu guux dëgg la mais dama ne xoola kiñ damoon hmm. ñu toog kooku nga xam ne kenn mu musu gis kanamam xajul ci xajul ci nit xajul ci chef d'état bay xaj moo tax keroog démb ba ma nee fii Sénégal ñun xam nañu ay multimilliardaire dëgg mm, mm. yu wóor <laughs> duñ yoo xam duñu sax ay caaxaan mm. sénégalais yi xamuñu leen amuñu seen foto mais mun naa am na kenn koo xam ne ñeme naa ko mën naa ko wax sama xarit mais Demba Ka bu kenn gënu ko mais kan moo xam kan moo mën a gis photo Demba Ka man Demba Ka la première fois bi ma ko gisee dama tiit dama mm. foogoon ne benn paa la benn paa yu xobédaas yu am biir wi nga nekk taat ak yooyu mm. solo ay sabadoor yi nga xam mais c'est un jeune mm. kenn xamul kanamam kenn musul moom déjà kanamam kenn xamul te dem ak xamul du morom du morom Aziz Ndiaye benn ñaareelu xool li mu yor ci digg dëkk bi waaw mosoo gis lennam man de mosuma koo gis ma ne la déggu lu ma la wax man man dama am chance boppam comme ni ma ko mm. wax rek ñu bëri fii Sénégal te ñu mm. mel noonu moom moom laa si gën a yàpp moo tax xam naa su <laughs> xale dee këppati yónnee ko ko dina <laughs> ma ma may rek man moom rek laa gën a yàpp ci si ñi ma xam ñëpp mm. mais yàlla xam na ni ñu mel ne Demba Ka yaa naa ñu ñu ëppale Demba Ka ñu ngi fi EDK ki ko moom établissement Demba Ka multimilliardaire la macha allah senegal yi kenn mënu laa dembaka nii la mel photo Demba Ka kenn amu ko photo ay doomam hmm, dëgg kenn kenn je veux dire kenn xamul Demba nu mu mel kenn xam mën na la romb nii hmm. doo ko xam te lu mu yor Aziz Ndiaye séenu ko ba kay jege hmm. mais kooku dangaa gis lennam Youssou Ndour du wane interview Youssou Ndour te ci ci Aziz Ndiaye Youssou Ndour du gisoo lennam gisoo ko intérieur mais Amadou Ba Amadou fii lay wane wane ascenseur gars yi ngàbb ko ñemetul wane lennam hmm. Moustapha Niass mii pa Moustapha Niass lan la yorul pa Moustapha Niass lan la hmm. yorul hmm. ñam si yàlla Baba Diaw itog kes lan la yorul ci dëgg dëkk bi da ngaa mos gis Baba Diaw itog benn photo photo photo ancien long la na gars yor ci moom kan mu mos a gis jabar Babacar Baba Diaw ne kii kii ay jabaram ay doomam kenn moo ci siiwoon te defe naa ci affaire ay événement malheureux ay affaire kii ak yooyu. Hmm. jël te après kenn gisaatu ko. Hmm. et j'en passe et j'en passe. Hmm. et j'en passe et j'en passe. yow. commencé leen woote. yow fu la fekk. muy xiir yaa ngi wane sa bopp yaa ngi euh, euh, kii yaa ngi yaa ngi vidéo bu bu bu la ñaari mu seet see sax mm. nga vidéo def off daal ne kii mëri dara la nga defee yaa nga ca mm. booy dem voyage ak sa jabar lune de miel vidéo booy sport ak sa jabar vidéo toute ta vie est documentée sur internet mm-hmm. loolu du yëfu kilifa loolu ñun wax dëgg yaa koy dañoo soxoro yi ñaa mais ñun dañoo faale Aziz moom xëy na moo nu ëppale waaye ñun sunu sunu sunu sunu ton mm. ak sunu nammee sunu ton mayonnaise bi ñuy dóor mm. ak sunu nammee sunu café Touba bi mais mais on est vraiment sunu café Touba bi bi moo xam du ànd ak mburu du ànd ak mburu ànd ak da amul meew du ànd ak dara suukar lañ ci def <laughs> ak sunu nambe sunu ton mayonnaise ay waay waay defal leen ñu kii waay nu mu tudd ay kañot kañot <laughs> sonn nañ moo tax eh, boo gisee ñu naan ki dafa soxor dafa bon ñoo tey soxor waaye nag ñun li ñuy wax li ci am solo mooy mm. ku bëgg a dégg dëgg boo dégg dëgg di dëgg ngi ku bëgg a dégg la sa affaire la ku fi mm. nekk yow di wanewu di tiitaroo ko di jaay affaire mais tiitaroo wane yi fii la yem eh, xoolal tey ñu kontaan ndax eh, sa dagama communiqué association boobu waaw waaw wattu wattu wattu suñu diine communiqué bi waxtu suñu di je pense la tudd mais comme ni que ma ko yónnee ñi ma ko yónnee kontaan dama dama Aïssatou sa arrêté dama jàpp ne loolu mooy taxawaay journaliste léegi nag moom nag Aziz na ci def ma comme ñu koy jay ak euh, sagaru ustaas yi mu àndal ñu koy jay di ko pompe euh, euh, naan ko kii dafa iñaan dafa soxor dafa nang te jéemul mais ki muy àndal gis naa ko muy ànd ak kii Eliman Lam moom mais Eliman Lam moom su ma gis moo ne viwo moom Elimane Laan musuma gis ma war a gis naa daal benn jabaram. Mm-hmm. xaw ma ci ban yan mariage ñu mu dem mu dem di joxe xaw ma yooyu. ah Elimane Laan mi muy àndal moom. Mm-hmm. ñu woon mu mu toog ci këram di ay ñu koy vidéo yooyu j'ai jamais vu ça. d'accord j'ai jamais léegi am na gàmm bu sérieux bu amoon Tivaouane bii. waaw gàmmu <laughs> seytaane mais gàmmu dëgg amoon na. <laughs> gàmmu dëgg bi.